la metti du la def lu la metti du maa la def lu la metti aw keneen ku dul yow amul lu bon ci man sama xol dafa sell doo def lu metti aduna bi amul solo soppeeku naa duma ki ma nekkoon démb bëgg ba bañ la bàyyi te yow parewoo sax pour coopérer xam nañu ne defuma dara moo tax ñu bëgg ma libéré wu mais libéré wu mais nan nga mënee dem procès di fen xalaat ni dinga ci jële ndam ne loolu mënul nekk sama gémmiñ bee ma tooñ moo tax ma foog ne dañ ma liggéey. pour yow ñoom ñoo la def dara or que yaa leen teg tolof tolof yi ñu nekkee ci seen xaalis. ñoom xam nañu ni xaalis bi bañoon naa ko laal ndax bëgguma problème waaye ñoom ñoo ci topp di insister. leen daal laa bëgg nga xam ko tey mooy dernière chance bi ma lay may li ma bëgg mooy nga wax ma dëgg bi sinon ma bal lépp et cette fois-ci ce sera définitif dama am problème wóolu nit léegi xamoon fii nga nekk nii nii nii sa prison nii ngay dem dinaa wax dëgg gi même bu ma demee prison yàlla dina ma jàppale li ma bëgg daal nga xam ko lenn la mooy tey jii dëgg rek laa soxla soxlawuma fen walla ma balin bi ma waxee ni benn doom laa am dëgg la woon négatif amoon dara loo ma wax ndax lépp lu ma wax dëgg la déglul ma wax la lépp lu ma wax pour aar sama doom ji la woon wax ma ci xaalis bi yow eggaguñ ba léegi yow loo ciy lijjanti dawalal sa dawal te yi li di poser ay question looy lijjanti loolu yow da nga bari problème lool fi mu yow mii yaay góoru problème yow yaa bari problème may ma fii ma wàcc may ma fii laa may ma fii ma wàcc may ma ma wàcc sa am sa xaalis. sama sàkk lii fi jot am lenn de dinaa la ko xamal dinaa def tuuf ba nga dee ci kaso bi xamoon naa ne dinga ma won su ma la waxoon dëgg gi pour yow danga def sa xel mi ni sa xel mi neexul xamuloo ne dañoo xamante ñun ñaar dara dalu la maa ngi ci jàmm dama tiit rekk kon ba instant yi mën nañ déduire que ni am amaguñu benn piste bu leer. amaguñ dara de xaw ma nag. dina baax. espérons mais au fait maître Maïmouna doon na ma wax ni tey la war a dem ànd ak daam bi mu wannu fan la denc xaalis bi. waaw war nañ fa dem tey sax mais man. y a quelque chose qui m'a dit que nii daam bi am na lu muy manigancé. ban daam ngay wax noonu yow. xanaa sa cliente. kon su ma la déggee day mel ni que daam bi dafa am benn gang bu mu bokk loolu nga yaakaar. qui sait mënuñu wax dara ndax boo seetloo histoire yu ñuy tegal yëpp yëpp yëpp depuis le début. Mhm. dañu ragal lu de trop. mais yow danga ne woon danga bëgg a protéger sa doom walla dañ ma bëggoon piéger jàllul ñu wëlbatiku ci sama famille. piéger ñooñu seen xaalis rekk lañu soxla du leneen. lu ma wóor ne dinga gañe procès bi. ok. comme déggaloo ma dangay dem seeti beneen avocat ndax ok comme déggaloo ma demal nga seeti beneen avocat ok comme déggaloo ma demal nga seeti beneen avocat ndax yaa ma soxla man. soxla wu ma xaalis ci kaw garab gi ma denc. nañu dem nga wan ma xaalis bi taxaw naa pour yóbbu la fa soo ma fenee dinaa def tout ba dee ci prison bi te dafa am lu ma bëgg nga leeralal ma ko loolu lu mu doon kan moo lay indil fii lekk sama rakk la saa bu xëyee indil ma lekk man genre de relation ngeen am. sama rakk la problème yi yoonam newu ci saa bu xëyee indil ma lekk. dinga ñu yóbbu suba fi nga denc xaalis bi. léegi dans ce cas moo tax maître may mën a warul mën a bàyyi femme bi mu wuti keneen koo xamante ne mën na ko dimbali. en tout cas j'espère que ni bii yoon moom. histoire bi mu ñu tegal mooy bu baax bi. ah ah xëy na parce que affaire bi tamit mi ngi bëgg a yàgg de te yoon la ñu découvrir vérité bi nag. mi ngi bëgg a yàgg tamit. dina sotti. yaa ngi gis xaalis bi ah. enfin Touré yéegal àjj. oh lu leen def lu ma jaaxal sama gars yi leen war nii de teg leen armes yi. arrière xale bu góor bi yow la kan. maître Maimouna ngir yàlla génn si mission lañ ma jox. dem ça devient man sa dama jaaxle. gaa yi fa nekkoon ñan lañ. dem leen a xam mosuma leen gis c'est la première fois ñu may tuumal ci yu mel nii. dama bëgg nga wax ma à part man kan moo fi ñëw di la seet. maître posé woon nga ma question bi nee naa la sama rakk moo may indil lekk fii mais yéen comprendre ma leen nan ngeen bëggee ma defendre leen te yow bëggoo ma défendre la ah, xam naa li ngay xalaat pour yow dama lay piéger comme ni ko policier bi xalaate woon gis nga dil bi yow mi yaa ko def ndax feeñ na ci sa kanam loolu nan la mën a nekke du ñun ñoo àndoon ñu agressé ñu ci suñ seen kanam ah. calme-toi May ba xam nga ni sa cas yaa ngi koy aggravé du ci dara de du ci dara dara yow nit ñi joxoñ nañ la teg nañ la bët ñépp yow lañuy waxtaane jëf la joo xam ne nag yoon da leen ciy daan yow ak sa rakk bis buñ leen jàppee di fanaani kaso dinaa la wax li nga xalaat ci man. waaye yow lekk ma la indil dem est-ce que neex na la. ñii de dañoo lekk lépp bàyyi luñu ma sax. Hmm. yow ça va yaa ngi ci jàmm. ah ñun de instant bi ñun ñëpp dañoo inquiété wu ndax yow nga yaakaar ne avocat bi mën na la génne ci situation bi nga nekk. man tamit damaa jaxasoo lool bëgguma woon wax sax dëgg lu jëm ci xaalis bi. mais danga ko war a wax dëgg bi. yépp su ko defee mu mën laa dimbali. man takk naa ci ba pare xaw ma woon ne fen bi ma njëkk a fen moo may dugal. <laughs> léegi yow nga yàkkaar ne moom dina la mën a dimbali ci kaw ay fen. li ma ko wax moom la war a gëm waxoon naa ko dama làkk xaalis bi ci kaw garab. léegi moom lan la la wax. suba lañ fa war a dem pour ma won ko xaalis bi. d'accord léegi lan laa mën a def pour yow. wutal bandi boo xamante ni dañ koy fay pour mu. ah d'accord je comprends da nga bëgg léegi su ma jëlee bandi boobu mu jiitu leen fa comme ça yéen moment bu ngeen récupérer xaalis bi moom mu ñëw tiital leen ak pistolet daal di nangu xaalis bi daal di daw. voilà loolu la loolu la wax. d'accord. dinaa ko def exactement comme ni nga ko waxee. d'accord léegi nag nooy def ba kooku du daw ak xaalis bi. gis nga yow daal amal ci man confiance rek. d'accord. nga liggéey bii nii ma lay sant dama bëgg nga defal ma ko mu bañ a am benn trace bëgguma kenn soupçonné la ci. tant xaalis baa ngi fi kay loolu du problème. lu ma jaaxal sama gars yi leen war a niire teg leen armes yi yow xale bu góor bi yow la kan. maître Maimouna ngir yàlla génn si mission lañ ma jox. dem du li ngeen def te dinaa leen wax li ngeen def waaye yow lekk bi ma la indil démb est-ce que neex na la ñii de dañoo lekk lépp bàyyi luñu ma sax hmm. mm-hmm. yow ça va yaa ngi ci jàmm ah ñun de instant bi ñun ñëpp dañoo inquiété wu ndax yow nga yaakaar ne avocat bi mën na la génn ci situation bi nga nekk man tamit damaa jaxasoo lool bëgguma woon wax sax dëgg lu jëm ci xaalis bi. mais danga ko war a wax dëgg bi yépp su ko defee mu mën laa dimbali. man takk naa ci ba pare xaw ma woon ne fen bi ma njëkk a fen moo may dugal. Hmm. léegi yow nga yaakaar ne moom dina la mën a dimbali ci kaw ay fen. li ma ko wax moom la war a gëm. waxoon naa ko dama làkk xaalis bi ci kaw garab. léegi lan la la wax parce que man ak yow yépp xam nañ ne xaalis bi làkkoo ko ci garab. war nañ fa dem suba. pour ma won leen xaalis bi. alors lan laa la mën a dimbalee. dangay wut bandi boo xamante ni danga koy fay. ah d'accord je comprends danga bëgg bandi boobu mu jiitu leen fa su ko defee bu ngeen jëlee xaalis bi moom mu génn pistolet tiital leen mën a récupérer xaalis bi daw ak moom. voilà. loolu la loolu la wax. d'accord dinaa ko defee exactement comme ni nga ko waxee léegi yow danga bëgg. gëmloo avocat bi que nii xaalis bi réellement danga ko denc foofu su ko defee bande bi une fois mu tiital leen ak pistolet récupérer xaalis bi avocat bi mën la défendre. loolu mooy sama pexe waaye nooy def ba am ku la koy defal. <laughs> loolu du problème tegal lépp sama loxo yow daal amal ci man rekk confiance gis nga yéen une fois ngeen ñëw foofu pour récupérer xaalis bi. man dinaa wax gaañ mu génn pistolet su ko defee dina utiliser lool pour tiital leen après mu mën a daw ak xaalis bi. pistole foowukaay buñ ko tiiree nag. non t'inquiète pas gis nga avocat yi duñu déplacé wu ak arme à am naa ci yow yaakaar lool. gis nga liggéey bii nii ma lay sant dama bëgg nga defal ma ko mu bañ a am benn trace bëgguma kenn soupçonné la ci. tant que xaalis baa ngi fi kay loolu du problème. d'accord amul benn problème mais en tout cas daal liggéey bi defal ma ko ba mu baax. lu ma jaaxal sama gaay yi leen wër nii de teg leen arme yi arrière bu góor bi yow la kan. maître Maimouna ngir yàlla génn si mission lañ ma jox. bien joué. <laughs> exactement loolu ngeen def defuma dara ndax amoo preuve dinaa la wax preuve yi ma ci am benn saag ba ngeen tegoon ci kaw garab ga xaalis nekku fa deux douze million du lu rëy boo ko takkee nga xool takku saaku ba lu ndaw la boo ko weccoo nag ay téeméer tuut la trois band bi ngeen jëloon pistolet foykaay la yoroon te buñ ko ci jàppee dañ koy tëj dama lay poser question avocat nga wala détective nga léegi nag ñaari kaa nga amee